dañu doon organiser CRD mooy comité régional de développement euh, pour ñu jëm ci commémoration cinquante ans manufacture sénégalaise des arts décoratifs lu waral loolu CRD bi gouverneur moo koy porté parce que gouverneur mooy représentant président de la république fii ci manufacture manufacture fii ci Thiès manufacture nag Thiès la la la la soko donc il est important que autorité bi nga xam ne moo représenté président de la république te manufacture état bi moo ko sanc mu ñu ñëw fi tey daje waxtaan ci commémoration cinquante ans yi boole nañ acteurs yëpp pour ñu ñëw compte euh, assister ci manifestation bi euh, les les les membres du CRD c'est-à-dire les services régionaux les acteurs culturels de la région de Thiès et les les les les représentants du ministre de la culture et de la communication qui euh, en fait, est vraiment le porteur euh, de, cette de cette manifestation et donc qui, nous sommes sous la tutelle des manufactures. Donc je pense que loolu am na amoon na solo que tey ñu organiser ko pour ñu xam. waaw cinquantenaire bi bu ñu ko euh, parce que cinquante ans de cela le président Senghor ñëw fii sanc manufacture donc manufacture. Euh, am na ay jéego yu mu def ci biir liggéeyam euh, ba ba am na benn image bu mu am euh, ci bitim réew boo xam ne vraiment nekk na tiitaru Sénégal donc cinquante ans bu ñu koy feto nag dañu war a xool ñu manufacture fan la jógee lan la réaliser ak fan fi ñuy jëm donc cinquante ans yooyu je pense que du nekk loo xam ne dañ koy organiser nii ci Poukéré mais dañ koy organiser pour que euh, manufacture gën a jëm ci kanam à travers à travers euh, euh, réaction yi muy am wala communication bi nga xam ne dinañ ko développer pour que nit ñi gën xam manufacture manifestation yi ñuy organiser pour nit ñi xam produit manufacture yi et puis ñu xam manufacture fan la toll parce que fu mu nekk nii ñu ngi liggéey ci diversification bi produit yi ñu ngi fi yoo xam ne euh, du tapisserie rek parce que tapisserie foog naa moo tax ñu bëri di daw manufacture parce que dañu naan ñu ko jënd donc intéressé wu leen mais je pense que avec les produits ñuy defar ci côté céramique ci côté batik euh, ak euh, euh, je crois que population Thiès yi ak yeneen yeneen gox dinañ intéressé ci manufacture. Euh, euh, ñu jot wax ñu euh, impliqué les ci wax. waaw collectivité locale yi bon parce que directive président bi moom ñëpp la concerné ku nekk ku yëngu ci état service buy yëngu ci état war nga mun a appliquer directive boobu. collectivité locale yi ci lañ bokk du état central rek moom moo war a def commande donc euh, je crois que proposition boobu idée boobu idée bu baax la ñu nag lu ñuy def fii manufacture dañuy invité maire yi saa yu ñu amee gan euh, ñu invité leen wala saa ñu amee manifestation ñu invité leen wala ñoom ci seen bopp bu ñu amee ay gan ñu indi leen fii ñu ñu visiter manufacture parce que manufacture aussi ku ñëw Thiès euh, bu jogee bitim réew réflexe bi nga am mooy ñëw fii xool lan lañ fiy liggéey et je crois que nekk na produit boo xam ne day contribuer ci rayonnement de la ville de Thiès.